ci bunte bu xaraama araama araam muy nger ndax yow mi tam ñàkk bu la taxee jaay sa carte yaa ngi lekk ger bu fekkee ne moom dala ne wateel ma ma jox la nangam bañal bu ko jël bu la joxe ay milliards bu ko jël bu ko jël sa war a ngay lekk de bu ko sax xalaat moom it bu defee loolu mu ngi alak boppam bu ko jëlee nag ca alal ji ñépp moom nag foofa la ci bunte bu xaraama araama araam muy nger ndax yow mi tam ñàkk bu la taxee jaay sa kart yaa ngi lekk ger bu fekkee ne moom dala ne wateel ma ma jox la nangam bañal bu ko jël bu la joxe ay milliards bu ko jël bu ko jël sa war a ngay lekk de bu ko sax xalaat moom it bu defee loolu mu ngi alak boppam bu ko jëlee nag ca alal ji ñépp moom nag foofa